jaajëfalaat bu baax yéen mbokk internet yi dañu ñuy suivre chaque jour fii ci Leewtoo TV lundi 24 mai ñu ngi fii arène national kan moo woote mu ñang production daal di fi teg combat bu mag combat boo xam te ne ñaari espoir la boole muy Rambo ak nga xam te nii mooy Boy Kaza tey jii fii ci arène nationale kon Bilal dañuy daal di ñëw rek dugg xool kan mooy jël raw gàddu gi Bilal ak ñu dem

arbitre bi sifflé di nga def Fils de Sam Sam ak confiance Fils de Sam Sam moo ñëwoon ginnaaw tax moo sa ci bopp bi confiance moo fay da suñu càmmoñ takku sengoor yu weex yi Fils de Sam Sam nag moo tax ngemb lu li moo tax banderole rouge ci ngemb bi tax moo sa ci bopp bi Fils de Sam Sam plaqué na ko daan na ko Fils de Sam Sam daan na confiance Fils de Sam Sam daan na confiance. Fils de Sam Sam daan na confiance. Fils de Sam Sam daan na confiance. arbitre sifflé na diggante Bébé Jordan ak Free Bet moo ngeen boo ngeemul weex li Bébé Jordan moo ngeen boo ngeemul weex la waaye xam naa ne bien yee ko jàppam xàll Bébé Jordan Free Bet Bébé Jordan Free na ku léegi Bébé Jordan Free Bet Bébé Jordan am na ngemb Bébé Jordan lu mu nar Bébé Firi Baaj na ko Bébé Jordan Bébé Jordan Firi Baaj war na ko nombe Bébé Jordan Bébé Jordan daan na Firi Baaj war nongo daal koy nooju parce ci suuf si Bébé Jordan daan na Firi Baaj play nee na ko jugal lii làmb la su jeexee jeex na lii dafa rafet fair play 100 pour cent Bébé Jordan daan na ngi nag ñaari mbër yaa ngi diggu géew gi at bi baa seet ndax niin nañu wala niinuñu at bi bi kami seet noon nag mooy Rëm Junior kee mooy Modou Boy numéro 2 muy noonu nag Bilal avertissement pour Rëm Junior avertissement pour Rëm Junior nee na ndax pare nga at bi sifle na diggante Rëm Junior Modou Boy numéro 2 Rëm Junior moo fere suñu ndey joor mooy mbaru bëri sangoor yi rek Modou booy moo fere suñu càmmoñ ngemboo ngemru bulali ña ngay lewtoo Rëm Junior mooy borom rasa yi borom ñeñu gàtt yi lu mu nar mépp na daal taxawaat Rëm Junior Modou Boy Rëm Junior mu ngi dox ci kawam taxawaat Rëm Junior Modou Boy ñu ngay lewtoo day bar ba mu yéexal ko rëm junior coxaas na Modou Boy coxaas na Modou Boy rëm junior rëm dóor na Modou fayu 1-1 rëm junior Modou Boy dóoraan na fayuwaat na rëm junior Modou Boy ña ngay xeex ña ngay xeex rëm junior Modou Boy numéro 2 rëm dóoraat na Modou Boy mépp na daal di dóor Reum Junior Modou Boy Reum Junior Modou Boy mépp na bëgg a dugg daal di génnaat Reum Junior Modou Boy ñoo ngay damantee baaraam Reum Junior Modou Boy Modou Boy numéro 2 la dem na Modou Boy ak Ram Junior ñaari xale lañ abib nee na bëre Ram dooraat na Modou Boy jàpp na ko kor na ko <laughs> Ram ngeen nga mu daal di ko dugal uppercut waaye dalut Ram Junior dooraat na Ram door na Ram loo nar oh, dem na Ardo yóbbu na ko Ardo arbitre attel yóbbu na ko Ardo ma ngay nàcc ma ngay nàcc ma ngay nàcc ma ngay nàcc Ram Junior Modou Boy der bi sànni na arbitre bi xanaa gisul lii xanaa arbitre bi gisul lii Modou Boy Yaram Junior at bi àtte na nga yéex a àtte Modou Boy Yaram Junior xale yi xeex nañ la ilaha illallah Yaram Junior yóbbu na Modou Boy Ardo mu ngi noonu nag arbitre bi sifflé waat na diggante Modou Boy numéro 2 ak Ram Junior leen fàttali Ram Junior moo ko yóbbu Ardo léegi ñëwaat na Petit Junior Modou Boy numéro 2 ak Gërëm Junior Modou Boy dina jël tànk bi waaye demul mu génnaat ñu ngay léewtoo jàpp tànk ba moytul ñu nax la Gërëm Junior Modou Boy mu ngi ko fay dolliwaat jël na tànk ba Modou Boy numéro 2 Gërëm Junior mu ngay defar la petaaka ba ñu ngay léewtoo Modou Boy numéro 2 Gërëm Junior ña ngay damantey baaraam épercule e na ko doxul Modou Boy Rom Junior lii su continuer ragal naa Habib dina tas combat bi lii su continuer Modou Boy numéro 2 day ñàkk combat am jox nañ Rom Junior victoire ginnaaw ba mu yóbbuwaat adversaire am ñaari yoon ardo Birame Junior lañ jox victoire bi par décision arbitrale. avertissement pour bébé Pafal mu mel ni premier combat social bala arbitre bi ko ndax pare ngeen laajte na nee na prip bërel leen yéen a ci des bébé garga be Pape Fall door na bébé garga jël na tànk ba bébé garga daan na koy nengeñ bébé garga Pape Fall ñaare bébé yeta sa tey bébé Pape Fall a ngi roqas ci suuf bébé garga bébé Pape Fall bébé garga jàpp na ci ngemb Bébé Pape Fall mu ngi yor pour jàpp laa ilaaha illallaah war na ko ndomba Bébé Garga war na Bébé Pape Fall Bébé Garga war na Bébé Pape Fall nar lu xew luy nar laa ilaaha illallaah Bébé Garga daan na Bébé Pape Fall dafa war ndomba daal di koy remplacer Bébé Garga daan na Bébé Pape Fall combat spécial la première. Bébé Garga daan na Bébé muy doon nag ay supporter am jóg nañu ànd ak mbër mu daan dafa neex Adama yaay filmé lu ne Bébé Garga écurie Balla Gaye numéro 1 daan na Pape Fall écurie Yeumbeul Asegna premier combat spécial nag combat social la ba léegi waaye mën naa ne bi mooy dernier combat avant grand combat bi onga bi yow taxaw arrangé wu ko lu xew avertissement pour booy sekk da ko sànni gàllaaj at bi sifle na diggante Ongué bu Yoff ak Boy Seck Ongué feere suñu càmmoñ Boy Seck suñu ndeyjoor ñu ngay lewatoo Boy Seck Boy Seck bu Yoff ñu nga lewtoo combat spécial la nee naa leen mooy combat bu mujj avant grand combat bi bi dina dox ci Rambo ak Boy Kaza onge bu yoof ak Boy Kaza ñu ngay lewto onge def na doo gauche droite génnaat xeex ña xeex ña xeex ña onge nga dugal uppercut kor ko dugal uppercut onge da koo dugal uppercut lay la xay la la xale yaa ngi xeex onge bu yoof ak Boy Seck jàpp Boy Seck jàpp na ci ngemb li Ongué jàpp na ci ginnaaw lu ñuy def Ongué bu Yoff Boy Seck Ongué bu wees Ongué bu Yoff Boy Seck wuraat na ko ndomba daan na ko da ko riñaan Ongué daan na Boy Seck da ko di ñaan daa di koy daan jël bu amul benn werante mu ngi noonu nag déplacé wu ñëw ànd ak moom soutenir ko wane ni combat bi bis du tuut borom lay tolloo loolu lan la. non sama doom sama doomu nijaay la waa deret la waaw sama doomu nijaay la quoi waaw tey bisam sama bis la waaw papa nekk bi maman fi nekk foo ma teew. nan ngeen ko waajal. <laughs> waajal ko ni préparé sama combat rek parce que ñu ma préparé ñoo ko préparé waaw loolu ci nan la mën a gagné combat bi tey. ci lépp ah pare na daal. xeex yàlla may ñu ndam rek. xeex non dañuy ñaan yàlla ñu ndam rek. incha allah. foo toll Eumeu Sène gars <laughs> yi Eumeu du ma la du ma la dara.

baaba la booy Kaasa la ngeen di noonu booy Kaasa la nga dafa guddi baay jiiri dañoo bëgg a ñibbi lambak coow a abib laaj na leen abib sifle na diggante Rambo ak booy Kaasa lundi 24 mai 2021 19 heures 26 Rambo moo ñëwoon ginnaaw Boy Kaza mu ngeen jàkkaar lool nekk écritage yi nga ànd ak seen ndëdda fil moo ko indi tey jii ànd moom jox ko confiance ne ko dama bëre da Boy Kaza coxaas na daal di génnaat Rambo nag tekk di toppee latéral Boy Kaza Rambo Boy Kaza door Boy Casa Rambo Boy Casa dooraat na droite Rambo da nga koy yor wala mu demee nii Yambo Rambo Boy Casa ña ngay leewtoo Rambo suñu càmmoñ Boy Casa suñu ndeyjoor Boy Casa moo tax bu weex bi ci bopp booy Kaasa booy ko écurie yëmbal asek naa ak Rambo bu kiri ama seen bu taaj si nga xale yaa ngi ci digg géew gi di li léewtoo na booy Kaasa Rambo ñu ngay léewtoo booy Kaasa Rambo na dooyurul dal dalay mbër booy Kaasa Rambo Rambo fayu na Boy Kaza Rambo Boy Kaza door Rambo door fayu nañu ko mu ngay Boy Kaza kor na Rambo Rambo di rokkos ñu ngay Boy Kaza Rambo mbaa kaawa am épercule Boy Kaza Rambo Boy Kaza Rambo xale yaa ngay xeex illallah Boy Kaza Rambo Kaza dooraat na Rambo dooraat na mbaa kaawoo ku nekk am nga ku ku ci nekk encaissé nga booy Casa Rambo ñu ngay xeex mbaa du mujj ci dóor mu daanu booy Casa jël na ko da koo daal jël jàpp ci ngemb la booy Casa jàpp na ca ngemb la daal koy nengeñ booy Casa Rambo booy Casa am na ñaar ci gaño Rambo jàppul ci dara instant yi bateau rek ngay ak reporter yi ñuy wax waaye supporter yaa ngi ne tekk amateur yaa ngi ne tekk arbitre bi àtt lu xew booy Casa Rambo lu xew. booy Casa ya booy Casa dem na ardo mu ngi noonu arbitre bi sifflé waat na diggante Rambo ak Boy Kaza ginnaaw ñoom ñaar ñëpp bañ demee Ardo ñu ngi wàcc di géew gi ñu ngi lewtoo Boy Kaza ak Rambo Boy Kaza Rambo Rambo coxaas na daal di koy songu jàpp ca ngemb ga Boy Kaza Kaza songu na Boy Kaasa ak Rambo Boy Kaasa da koo nengeñ jam sengoor ya di dugal ay coup suuf di roxas mu ngay doon ca famb ya da koy Boy Kaasa ak Rambo Boy Kaasa ngay doon ci famb yi Boy Kaasa Rambo Rambo Boy Kaasa Boy Kaza ak Rambo Rambo moo ko nengeñ fu ne nii dóor na ñu ngay xeex Boy Kaza Rambo Rambo Boy Kaza da koo di dóor ñu ngay dóorante la ilaha illallah Boy Kaza Rambo xale yaa nga Boy Kaza jël tànk ba la ilaha illallah Rambo dan Boy Kaza Rambo dan Boy Kaza Rambo daan na Boy Kaza combat bi métti na yàgg na waaye Rambo moo mujj jël raw ga Boy Kaza daan na Rambo la ilaha illallah Bilal supporter yaa nga noonu supporter yaa ngay ñibbi dañoo bég seen mbër daa bëre daan xale xeex nañ bëre nañu gis nañ lépp man jël ay coups jël ay coups ku si nekk dem nga ardo mais gis nga dama jàpp ngemb li ma jàpp ngemb li fëgg kuku mu siggi ma xëcc ko dëj ko mu toog. dañuy gis à chaque fois moom dalay aspirer pour nga ñëw ci xeex bi mais saa yu ko wuyusee dafay mel ni da nga koy wuyusi ci xeex bi. waaw dama koy wuy wuyusi parce que moom euh, li mu doon xeex gëmu ko moom li li mu bëggoon dóor ma ma juum mu daw rappel ma chaque jour dama koo xaar foofu rappel na ñaari yoon bu ñëwee fan may fekk mu xam fii baaxut. daan nga ngeer ba zap laa bëgg ngeen jox ma ko yaay bay awa kene barke fa bi ñaata